waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jee tinul ñëpp yow boo tinoo yàlla tin te nit ñëpp a ngiy yox yoxe kay ragal jógal ram mbaa gëm yi dem nit ñi bon boob sàmm ne ci yàlla jur gépp jee bu jur gépp jeexee lu muy sàmm kon ba nuy dëddu kër baaya kii ndey di ñëw butug mucca tax mbaalu nuy wut si kon araaniyal hakiimu fi balaaya aafiyatan min marali mawla